d'accord mais xam na ne nekkatul mais tuuma bi mu lay tuumaal ci le fait que yow euh, da ngay transhumé rek am na benn photo ba nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy wane nga ànd ceeg Ousmane Sonko <coughs> mu mel ni <coughs> yow it loolu <coughs> moo lay wane neexoo setal ñu bëri nag ñu ngi ni da ngay def clin d'œil daa mel ni da nga nar a dem ci ci ci ci parti au pouvoir du tout ragaluma loolu ñuy wax parce que c'est la manipulation mi ngi nii ak sama sàkkar yàlla voilà macha allah ki nekk si ginnaaw moom mooy euh, euh, kii Latir Mm-hmm. ñun ñett ñi ñëpp waa Sanaa lañ am na si ginnaaw ki nekk si ginnaaw noonu c'est un procureur. Mm-hmm. ñun ñeent ñi nekk si photo bi xam nga photo bi kañ la en 2016. ah bon c'est pas une photo récente alors j'étais enceinte de mon fils aîné qui a aujourd'hui 6 ans. ah bon cher Souleymane Sall. c'est pas une photo récente. je t'ai dit ça c'était une soirée boo xamante ni ki ma ëmboon 6 mois. Mm-hmm. kooku tey jii am na 6 ans. macha allah lii waa Sanaa la woon waa Sanar nag dafa nek lo xamanteni kep képp ku bokk UGB rek dang ci bokk. Mhm. ñu def ben soirée de gala bo xamanteni dañ doon collecter ay xaaliss ma and ak sama borom kër mom tam moko UGB d'ailleurs je lui fais un clin d'œil Baba Fall diko ko nuyu di ko diko jox ko jox waatuwaayam si de desee Ousmane lutax ma reen Ousmane dafa ni ma dafa doon door ci gémmiñ photo bi dafa ma door ci gémmiñ. Mhm. ni ma bayil wax wax bu bari te bobu mi wu sax may ree maa ko ah kon ki yaw la. Non, ñu man ma jël photo bi sama téléphone. oui ça se voit. man ma def selfie man ma ko dugal sama page. Mhm. Bo démé sama page Facebook di nga gissé en 2017 lañ ko dugal. Mhm. xam nga ñii li moo lay wan ni manipulation la man il n'est pas Ousmane Sonko nekul un ennemi pour man Ñom ñoy xol nonu ci politique mais il est un adversaire et redoutable pour man damay jàmmaar la. ak li ñu opposé ak li yekk rek la ko xol feneen ma dama ni guddi moo jot mu bàyyi ay ñaari jéegam sol capuche dawal vélo dem jaaw la sen ak salon de massage ba paré ñëw taxaw ni martal combat man ma wax ni Ousmane Sonko mo wax ku dé sa yay juraat man ma wax Ousmane Sonko mom mo ragal dem wuy justice à chaque fois il appelle à ce que les jeunes sortent il a appelé à l'insurrection man ma wax ni Ousmane Sonko mom mo wax dafa ànd ak benn indiscipline bo xam ne def sur le plan civique dootu respecter ben droit fenal lu ma ko ko lu mu def la wax te ragaluma ko. d'accord li ñuy génnee dafa rafetul.

à travers Diaw qui est mon mari déjà dugaloon nañu benn photo sax ni sama jëkkër la pour te dire la ah manipulation laaj ko <laughs> sama jëkkër la je l'assume may wax ñi nga xamante ne dañ ma gëm ak samay sa soppe am sax ñu bokku Pastef ñoo xam biñu bi torchon bobu ñu ma bindal dañu ma bind ay message ma di leen wax bu leen tiit bu leen dagal yalla dogaloon nak talibé Cheikh la hmm. yalla xam nako yonent bi xam na ko sama wasila bi ma jox wird Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Souleymane Sall xam na ko yaaram ragal bokkul sama yëf billahi lazi laa ilaha illa huwa ragal fi ma jëm Macky Sall laa àndal mu falu fukki at ak ñaar Macky Sall fal ma jox ma opportunité ma participer à la vie de mon pays man Macky Sall dama koy delloo njukkal xaalis dina fiiha abadan Ablaye Wade laa mën a delloo njukkal te mosumaa fal sakantumaan président Macky Sall APR laa bokk fii léegi Macky Sall mi ngi bëgg. Mhm. bés bu buggulee nag am naa liberté bu doy nak tan ku ma neex ma ànd ak yow. d'accord wa pasteur damay opposé ak ñoom ba sagar xëy xunu ragaluma leen. mais nak le silence a été long. Euh, jéegi Diop ñu xamé la ñu xamé la ci. ci yaaram respecté wu ma sax 90 jours yi. ñu xamé la ci bind bind article. ñu xamé la ci contribution man mi bokk na ci ñi nga xamé ci dama la doon partager chaque jour je partage le président Macky Sall ba ñu may wo di ma wax. non mais ci contribution maanaam jàngat yi nga xamante ni moom nga doon def ci sais jusqu'à présent je l'ai fait mais c'est-à-dire j'appartiens dans une entité pour un élément à man awuma benn indiscipline notoire dama bokk ci parti mu une ligne de conduite une trace. tracé me ma d'accord si ma nekk si Yaye Aram man ragaluma chômer moi j'ai chômé Hier Aram man nekkoon mindaanu naa ah bon man mindaanu en France def plonge macha man létt naa dem Amérique toog daan sama doole man ragaluma daan doole déedéet je ne m'agrippe pas une chaise déedéet dama gëm yàlla wóolu ko nag waaye ragaluma gis nga kii ma attaqué dem jox ko sëñ Saliou mooy sama ministre Alioune Thion il la donné un coup en bas de la ceinture a une femme Aïda Mbodj la ragal na dem attaqué Aïda Mbodj Bambey ba mu bëggee gagné conseil départemental Bambey Aïda Mbodj dëkk ci faay faay yu métti na ñëw mu attaqué ma live and direct. na ñëw mu attaqué ma ci débat ma tontu ko mais lii muy def dafa ñaaw ci góor. man moom doyuma kilifa zaahira tan na tan ragaluma la te ñiy courber l'échine parce que yana si biir ministère bi ñoo xam ne dañoo defoon mouvement de soutien pour Amadou Ba tey ji moom bu ñëw ñu commencé di ko dérouler tapis rouge ñoom ñoo koy mettre en man avec les gens man du ma soppeeku noonu gëmuma loolu table de coordination laay toog ñu leen président Macky Sall laa àndal tey balaa suba et je l'assume d'accord bu leen tiit bu leen ragal dund dund moo ci am feebar dee wala dugg kasso bu mu ci meunti doon man paré nako l'essentiel est que mes idées yay aram loolu la meunu supporter hmm. quelqu'un qui m'empêche de m'épanouir hmm. sur tous les plans de li ma gëm dama koy wax d'accord kenn mënu ma koo tere wax. d'accord ba fii maa ngi gis madame Diégui Diop Fall mi nga xamante ni moom laa xamoon ay at ci ginnaaw di la jaajëfalaat encore une fois ci wuy bi nga wuy suñu invitation. merci beaucoup kontaan naa ce sera un plaisir ñëwaat fii te dinaa ñëwaat. tey dama xaw a feebar waaye ñemewu ma dellu ginnaaw. maa ngi kontaan di wax jigéenu Sénégal engagez-vous ce pays vous appartient gis ngeen nomination yi ni mu demee takk leen seen digg jigéen ñëpp nag laay wax. Mhm. waa Pastef yéen ñooñu laay waxanteel. waa coalition Diomaye yéen ñooñu laay waxanteel waaye nag waa Pastef na ngeen xool de waa système bi ñoo autour de Diomaye Faye ndax table bama seen barki dem Mimi Touré Aïda kan système bi ana ñu Ousmane Sonko man défendre le président Diomaye sax défendre le président Ousmane Sonko té nga bokk passif Mimi Touré rek ay wax ndax fi assemblée nationale xalaat nañu dissoudre ko ñu jox ko président assemblée nationale ñun jëm de tout bord compris kon yow yaa ngi yow bokk nga ci ñi xalaat que ni ci dissolution assemblée la ñu jëm. xalaat naa ko parce que ñemewul dem defi DPG. Hmm. xalaat naa ko. ah motion de censure bi day day day day dalaate de. Ah, loolu tamit am na ci duxa ragal amul. Hmm. ragal ragal du jéggi raay man dañ wax li mu wax ñi ñu wax mu wax joxe ñu wax tontu ko lépp jeex. maa ngi sant <laughs> maa ngi gërëm di wax euh, aux femmes de mon pays nañu dëgg téye mais aussi les jeunes ñu nekk défendre la république ñu nekk GIR yéen ñëpp takku leen ba dëgër ba jaxatee massa maa ngi lay massaw bu baax di lay wax nag ndogal doomu adama lay dal ku dul nit du dugg kaso nit rek lay dugg kaso mhm. léegi mu jeex na nga muñ sa waa kër maa ngi leen di masaw di wax nañ jàpp dëgër alhamdulilahi lazi sadaxanaa waxdahu waaw rasanal àddina te bawoo minel jinati haysu nashaahu nimal ajrul amilin jërëjëf madame Ndiéguy Diop faal la ñu loon ci bi la jotaayu entretien spécial di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité yeneen thème jërë ngeen jëf ci teewlu bi